asalaamaaleykum mbokk internet Leewtoo TV li leen bëggee bu baax a baax di am contentement jën ak yéen chaque jour nee na nit leen gën a fas si bopp xibaar la mooy suñu yitte noonu laay def di daal di nuyu borom kër gi di Pape Thialis Faye di ko ñaanal jàmm ju bari waaye di nuyu sama mag Mbaye Babacar ñu daal di fas yéene àndandoo jukkil leen li gën a fas jukkil leen li gën a fas ci noonu laay nuyu mbokk amaat mbokk internet yëpp ñaanal leen jàmm ak salaam sama xel mu leen billaay yërëm naa leen ndax xaar événement ba mu des ay quelques jours ñu ñu annulé ko dafa métti. mais nuyu naa leen ñaanal naa leen jàmm ak salaam di ñaan yàlla yàlla dolli jàmm ci réew mi ak bitim réew. naa noonu laay defee daal di cant ak ngërëm ñi nga xam te ne ñooy suñuy partenaires sponsor yi nga xam ne mooy ñu mm-hmm. gàmbu complet boobu vermicelle Jador macaroni Jador spectre Jador ñu ne déeta waaye mbay ñu teg mm-hmm. attaaya Jador kan mooy ci toog ki ci toog mooy boo ko yaar bi ndox mi nga xamante ne bi macha allah ndox mi set na sell na oyof na neex na ba pare neex a jëfandikoo li ci gën a neex ñu la koy jaay ci ay prix ya nga xamante ne bii prix yu abordable la yomb ku ci nekk mën koo jënd ndax prix na mu yombee wante ndox ma ku ko ñam dootoo ko bàyyi ndax qualité ya ngay fekk ci biir. ba tax na Okayada mooy ndox bi ñu aar noonu la def ne saraax ci journal suñu làmb tey nag journal yëpp la ñu xëyee mooy benn ponk benn wax la ñu xëyee journal suñu làmb record ak les arènes la ñu xëyee nag mooy report yi combat yaa naroon amoon ci semaine bi ñu jëm diggante le 31 ba le 8 août. combat ba noonu ndox ci diggante Balla Gaye numéro 2 B52 Siteu Papa Sow Boy Niang ak Tapha mu mel ni combat ba dox ci diggante Rhinocéros ak Doudou Sané yépp reporté nañ ko la record di wax nag nee na Sall maanaam gouverneur ba terrasse la ren <laughs> muy information ba nga xamante ne bii démb bi mu daanoo amateur yu bëree bëri am nañu la nga xamante ne bii euh, lu leen metti la ak lu làmb yépp ñoo am lu leen metti wante comme ni nga ko waxee record bind na ci arène bind na ci wante suñu làmb bi nga xamante ne bii moom tamit léppam làmb la euh, bind na ci euh, ci fi ñuy doore moom mooy suñu làmb nee na euh, ki nga xamante ne bii moom mooy Aziz Ndiaye yëkkati na ci ay kàddoom nee na information bi bi ko Balla Gaye jégee am na la am na la nga xamante ne bii lu ko metti la trop wante nag après comprendre na ne situation dëkk bi moom moo toll foofu ba léegi mu ne Aziz nee na moom xamoon na ne Euh, làmb ji dañ koy dañ koy dañ koy reporté mais bugg ko woon a wax Balla Gaye ki nga xamante ne bii moom mooy Pape Abdou Fall ba léegi yëkkati na ci ay kàddoom nee wax dëgg yàlla bi ñu jàkkaarloo gouverneur bi démb ñaari ñaari ñaari point la leen tegal nga xamante ne bii moom mooy euh, huis clos total wala report ñoom mu ne ñu ne nañu bàyyi gouvernement bi jël décision boppam ñoom nanguwuñu huis clos te wax dëgg yàlla huis clos buñ ko defee duñ ci loolu moo tax finalement ñu mu ñu reporté li nga xamante ni bii moom mooy combat ba ñu demee les arènes fekk nañ fa Fallou Ndiaye moom mi nga xamante ni moom tamit tëggoon na làmb xam ne waroon na am ci fan yu néew moom nee na affaire bi métti na trop métti na trop métti waaye bi foo ko mën a takk romb na ko wante nag nañu jàpp ne wér-gu-yaram moom moo ëpp lépp nañu jàpp ne li nga xamante ne bii mooy wér-gu-yaram moom moo jiitu lépp ba tax na métti na wante nag ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax rekoo ba ñu di fan bañ bañ fa demee Thialis fay lan fekk fekk Pape Thialis moo tëgg Tapha Tine ak ki nga xamante ne bii mooy Boy la mu wax ci record mooy ne comme li naataangoom yi wax rek nee na décision bi metti na trop wante nañu jàppale état bi ngir mbas mi gaaw fee jógee ñu xam ne moom mooy te noonu nag ginnaaw deuxième fois bi ñuy reporté combat bi dox ci diggante Siteu ak Papa Sow ñaari camp ya nag Mbaye Babacar ñu ngay fësal seen naqar ñaari camp yi ñu ngay fësal seen naqar ñu mën cee jàpp ki nga ne bii moom mooy Cheikh Niang moom su ma jumul mooy président écrit Lansar ba nga xamante ne bii fa la Siteu nekk nee na dafa metti combat bi booy xool fomm nañ ko ñaari yoon bi mooy deuxième fois ñu koy fomm te fomm bi dafa gën a jege sax parce que euh, mën nañu wax ne quatre jours avant bi la mu nekk la nga xamante ni bi ñaari mbër yëpp pare woon nan promoteur bi tamit defoon na li mu war a def ci combat bi yëpp ñu fomm ko moom daal ñoom daal li ñuy wax ñu ngi wone seen naqar bu baax a baax ci li nga xamante ni bi mooy làmb jooju ñu ñu annulé ginnaaw naqar boobu nag nga di Gris Bordeaux moom mi jiitee mbo mbootaay bi ëmb mbër yëpp ba hmm. mu génnee dim daa la muy xamal na mooy on ne va pas maanaam mbër yi di xool fu mu ne nii nee na day woote benn réunion ba nga xamante ne bi mbër yëpp la ci woo ñu jéem a xool benn plan d'action ba nga xamante ne bii moom la ñuy doxal wala moom la ñuy jël ngir euh, li nga xamante ne bii moom la état bi jël ñu dellu ci gannaaw ba mën a delluwaat ci li nga xamante ne bii moom mooy seen ay activité Gris Bordeaux moo yëkkati kàddu yooyu ci yëlif yi ne bii moom mooy suñu la def point de presse yëkkati yooyu la kàddu. ci rapport boobu nag dañuy jeexal ne kan ngay jeexal ne nag mooy booy gendar moom tam ci rapport yi victime la bokk. ndax fële la waroon a amale làmb ca. Euh, Ndar Géej le 24 bi passé la ndax euh, ku ne xam ne ne région yi bu événement jàllee rek dañuy tëgg li nga xam ne moom mooy ay laam mu tëggoon foofu ja Ndar Géej na combat bu neex mais laama ja mujjeewul am li ko waral moom mooy euh, manque de sécurité ndax fi mu toll ministre bi dafa génne benn arrêté ne couverture zéro ñi nga xamante ne bi ñooy takk der yi du ñu couvrir benn manifestation loolu moo tax li nga xamante ne bi mooy làmb boobu waroon am di Bébé ba mu jëlee raw gàddu ko fee rek Diourbel bay Babacar. caatuma loolu ko ne bii amul benn werante ko rof ko caxabal wéeru ko daan ko jël bu rëy Bébé Balla nag di ne bii mu ngi ci yoonu làmb di xale mën a bëre am fulla am fayda am gannaaw su bëree mu neex. su bàkkoo mu neex nekk fële ca école de lutte euh, Papa Diop Boston mën a bëre lool macha allah ñu koy ñaanal jàmm ak moom Bébé Balla. ca noonu nag journal Les Arènes lañ jëm ginnaaw ba làmb ñu koy rëpp dañuy am la naqar waaye lay xeeñ nag mënu muy bëgg a neex. Mm-hmm. diggante mag ak daq kii di Eumeu Sène ak nga xam magam di kii. Tyson mm-hmm. jàppale ma ñu ne journal bi lañ cee xam ne nag seen diggante ñoom ñaar ñu ngay waaj a jàkkaarloo waxtaanawaat waat am na ñaari kilifa yu siiw ci dëkk bi xamante ne bii bu ñu tuddoon seen tur tey mën naa ne ñépp xam nañ leen ñoom ñaar ñi ngi ci dox ay tànk jar gannaaw ba ñoom ñaar seen diggante amee ay ñagas-ñagas ñaari kilifa yooyu nag nee na ñu ngi ciy dox ay tànku jàmm te am nañ ci yaakaar incha allah du yàgg dara ñu teg leen ñoom ñaar ñu waxtaan ba trouver li nga xam ne moom mooy terrain d'entente ànd ak melaat ni mburu ak soow ñuy ñaan loolu ancu ak jàmma Sénégal jàmma xet te diggante boobu dafa war a tax neex. ca doon nag défaite devant Baboy Yékini et Eumeu Sène les trois erreurs de B52 de Mbour. suñu papa nag Amoura Sarr daal na ci àddu Mbaye Babacar. suñu papa Amoura Sarr ñëw na ci wante Abou Ndour dañoo fàttali li nga xamante ne bii moom mooy défaite yooyu nga xamante ne bii euh, Bombardier am na ko. première bi mu ngi nekkoon le 16 avril 2006 fële ca Thiès Baboy moo ko daan gannaaw ba mu jëlee tànk ba guitare ko daan ko jël ba nga xamante ne ñu bëri dañoo jàpp seen gémmiñ yaakaaroon ne Baboy war naa mën a daan jël boobu Bombardier ba ca jógee ki nga xam ne moom mooy Yékini daan ko euh, le 2 janvier 2000 le 2 janvier 2014 le 2 janvier 2014. daanaka euh, daanaka boobu moo nekkoon seen troisième combat nekkoon combat ba nga xamante ne bii tamit euh, Bombardier amoon na ci lu ko metti trop wante ba mu jógee foofu ci la ko am seen daan euh, le 28 juillet 2018 tamit ci la jëlee woon li nga xamante ne bii moom mooy ndombo tànk roi des arènes bi ci moom mu nekk ñetti jël yi nga xamante ne bii Abou Ndour ñëwaat na ci ci les arènes wante suñu papa Ambroise Sarr ñëw nag wax li nga xamante ne bii moom mooy ay défaut yi nga xamante ne bii moo nekk. ci Bombardier nee na Bombardier mbër la ma nga xamante ne bii mënul xaar bal bi suuflee day dox ci sa kaw te heure boo ko dóoree day bëgg a riposte day bëgg fayu automatiquement te loolu bokk na ci li nga xamante ne bii moo tax ay jëllam euh, xaw a bari ci làmb ji ci nag choix sportif déception ak marketing ki di tafaati nag le géant des extrêmes lu tax ñu wax ko tafaati dafa mel ni ay mbiram dafay dafa yéex a jaay dafa sedd wala lu xew waaw waaw loolu nag ci ci ci ci ci nit ki lay doon Euh, arène nee na Tapha Tine mbër la ma nga xamante ne bii euh, neexu la jaay tey bu nekkoon marque ñu ne marque la ba nga xamante ne bii tey boo ko tegoon ci marché bi ko jaay pour mu pour mu jar du yomb. na su Abou Ndour moo nekk fële ci arène moo yooyu la kàddu nee na mbër la ma nga xamante ne tamit ba léegi bokk na ci benn tournoi bu ñuy wax TNT waroon koo jël wante yàlla dafa dogal tournoi boobu noonu jëlu ko te tournoi boobu bokk na ci li nga xamante ni moo ko gën a tardel ci làmbam ca noonu nag loolu moo nekkoon li gën a fa si xibaaru làmb dama koy kontaanee moom Mbaye Babacar looy tàggatoowe li may tàggatoowe xanaa euh, naqarluwaat bu baax a baax li nga xamante ne bii dal na ci axlu làmb nga xamante ne bii mooy làmb yi nga xamante ne bii euh, moom lañu ñu ku ne xam na ne nitu làmb làmb la am dafa neex samedi wala dimanche nga sañse bu rafet dem stade toog seetaan làmb dund làmb loolu nag bu fekkente ne bii fan yi dañu ko xañ nañu gën a respecté li nga xam ne moom mooy mesure barrière yi gën a respecté li nga xamante ne bii moom mooy euh, port masque yi ak laal zel yi ak yooyu te bokk na ci li nga xam ne moo fi gën a gaaw a jëlee mbas mi sa bu fi mbas mi jógee rek ñu mën a gaaw delluwaat ci suñuy activité surtout ñun ñi nga xamante ne bii ay nitu làmb la wante daal lu mën di xew ak loo ci mën di dégg annulation combat yi métti na ci nitu métti na métti na mais comme ni ko sama mag yi waxee rek dañ respecté mesures barrières yi ku ci nekk def ci sa kénta lay kantam feeru bi jógee fii làmb ji ñëwaat ndax làmb li ëmb moo bari mbay waaw ko ñëpp a ciy tedd promoteur ba mbër ba supporter bi sax mu ngi ciy tedd ndax am na ci mbégte boo xam te ni du ko am feneen mm-hmm. ñun reporter yi bu làmb amul bu nañ tëdd nelaw bu mm-hmm. làmb tëjee ñu rafle bu mm-hmm. dañuy ñaan yàlla mbas bes bi jógee fii activité yi ñëpp béga ah. noonu laay def béggee leen ñi ñu topp ci Leewtoo TV di leen jaajëfal bu baax jox leen di daje ëllëg incha allah leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen